bismillaahi rahmaani rahiim rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxna wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inaa nasaluka xayra ma fi hadrin wa xayra ma baad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 ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal Alaaji Sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara aj màkk gi ñëw na fekk ñu fi dem na bàyyi nu fi bu dul soor yàlla ñu fi fekk te fekk leen fi <clears throat> jataay yi ñu ci doon waxtaane mën nañu ne ñu ngi koy tegandi du jeex mukk nag dëgmal jataayu jëm ci waxtaane asaka bëgg a taxaw nag ci li xew ci pénc mi te daan fi xew muy émigration ci yokk léeg-léeg baatu baatu clandestinité waaw tudde ko gàddaay gu jaarul ci yoon walla tukki boo xam ne bii légalut loolu lañ koy tuddee léeg lekk xewul tey nag déedéet du xew wi teyit waaw jóge ci barab dem ci barab dafa am yu baree bari yu koy waral wax naa ci ba ajjuma ji weesu ca daaru ci bu picc yaa ngi koy def waaw njéeréer yi ñu ngi koy def njéeréer yi muy soccet yi ñu ngi koy def boo seetaan documentaire yi euh, kéwél yeeg nag yeeg bukk yeeg gaynde yi dañ koy def jóge ci barab dem ci barab bi may waxtaane benn bis wax ak noppi lu ci gën wax ak noppi lu ci gën indiwoon naa misaalum kero ba kanaara jaaxle ca waalo ndax dex gam nekkoon di tepp teppal dafa ngiis xam ngeen ne kanaara dafa jóge jëm saalum dégg ngeen foxtaan bu mujj te dañoo yóbbaale mbonaat ndax mbonaat mënu fa woon a des kon hijra moom la ko alxuraan di wax mooy gàddaay jóge barab dem ci barab réew moo dem ci àdduna si fi nekk nii am na ay senegale am na ay étranger yeneen yu bokkut ak ña fa nekk suñu réew mii am na ko àdduna si yëpp réew moo wax rek am na ko yéen ñiy déglu albidaaya albidaaya bu jot ñu jot ci waa bitim réew minimum ñeent fukki nit ak juróom yoo xam ne dañu ne ñi ngi déglu émission bi di jaar ci salaamun yi te loolu lim bu tuuta tuuta tuut la ci nekk bitim réew kon yëf yi bitim réew loolu nit jóge ci barab dem ci barab yàllaa ko mooñi nit bari na koo xam ne kii bu seetloo dëkkul dakaar loolu ab lay Makhtar Diop xam na ci dara yàlla na ko yàlla yokk wér waaw am na ñoo xam ne ñoom kalaasu Cerno Cheikh gi tey ba cekkeen lañ jóge ñëw waaw tey ba cekkeen lañ jóge ñëw ñenn ñu jóge melax ñëw ñenn ñu jóge lingéer ngeen bal ma <laughs> waaw ñenn ña ñenn ña ñenn ñépp nu ñëw dakaar li ñuy wut si bu nekkoon ci suñuy région dun leen dun nu gis ndax dakaar xat na xaya dina waaw ak ak ak ak na ma Dakar baal waaw fi ne dëkk bi ci dakaar ci dëkkin wi ñi nga xam ne ñooy saytu xam-xam boobu xam nañ ne saturé na li fi nekk attanu ko moo tax am mbalitam ñoom sëriñ Fall mënuñu ko fee jële ambutiyaasam ambutiyaas bi ñoom maxtaar jóob mënuñu ko fee jële waaw marché yu débordé yi marché yu débordé yi ëllu marché mënuñu ko fee jële taxi yi nga xam ne da doon daw ci réew mi di xëy di am xaalis ñoom Serigne Diak ñoom Alioune Alioune nger xam nañ ne fi ne melatu na meloon transport bi bi shaklin am nun lemel ñi daan jaay essence essencerie yi xam nañu ne fi nekk nii la yàlla xam doy na yooyu yëpp moo daje yooyu yëpp moo daje kon li nu indi Dakar mën naa puus kenn mu jóge dakaar dem ci beneen dëkk mbaa ci beneen réew kon immigration mooy jóge fi nga nekk dem feneen sallallahu alayhi wa sallam ci weer wii du ñëw ci muharram ci lañ tàmbalee date tukki bi mu defoon moom jóge màkk ñëw ma dina moonte tàggoo wudde xanaa ka muy àndal ak ña koy couvrir waaye waa màkk buñ jógoon ni buñ yëgoon ni mi ngi dem dañ koy téye léegi penc mi fi ne bu nit ñu tàmbalee di dem waar leen taxul ñu toog mukk waar leen kat ki dàq waaraate ci senegaal ci waaraatekat yi mun la mënutu tax ñu toog ndigalu sëriñ le boo moytuwut waaw mu tax ñu toog du yomb ndax gone ga daay dafa toog oto bay dem tool ñu ne ko yéegal mu ne tey daal yaramam néexul ñu ne ko yéegal mu ne sama yaram daal néexul ñu jox ndigalu ña fa nekk ne leen jël leen koy dugal ci oto bi mu ne sëriñ bi nekkatoo sama sëriñ <laughs> mu ne sëriñ bi yow nekkatoo sama sëriñ waaw bàyyi laaj njaga mu ñu ko daal nettali ndeysaan nettali bu am solo te te yow sëriñ bi comme loolu la nekkatoo sama sëriñ ah. ginnaaw dugg ci oto bi dem ca tool jaral na la xàcc day <laughs> kenn mësu koo gis rek immigration mooy jóge cib dëkk dem cib dëkk eh, sunu borom téere bi mu wàccee ci sallallahu alayhi wa sallam lu ne ngi ci immigration bii laa wax sax 2023 mi ngi ci lu ko jiitu ma ngi ci woon mu traité ko ci ñaari barab yu am solo te sorewuñu def ko ci saar wi ñu tuddee jigéen ñi ndax émigration bi li ci jigéen di daj mën naa am góor du ko ci daj li ci jigéen di daj mën naa am góor du ci daj ndax jigéen da cay ñàkk jëkkëram mbaa mu ñàkk ca doomam waaw te benn benn yomb ci benn yomb ci waaye xale yi wax leen toog leen ndax nangam nangam taxu leen a toog léeg-léeg nga dégg ne ku am million passé ko dem mënoon nga cee liggéey wax nañ dëgg de waaye ceey bu la waxoon noonu def ba am million ba la ca tege mooy million boobu bu toogoon di ci liggéey dafa am jenn waaye joo xam ne da ko ci dompal far su neex naqar yi nga domp ca dompaat ca mu jeex laaj ko Ablaye njaay ambulance waaw loolu nga am su fekkoon dañ laa bàyyeek moom sécuriser la ko jamono ñooy tey soxna bu Sekk mii di yëngu ci fera feraay bi ak ñi mel ni ñoom nga fekk leen fi ñu nekk sécuriser leen ko ñaata lañ mën a jël ci emploi waaw ba leen bàyyeek seen bopp ñu dem nag ñu dafay jaar teg leen lu mu leen war teg te buñ ko tegoo gàlloo ko daanu te buñ daanu ñoom dong duñ daanu la àndoon ca entreprise ba société ba ñépp ay bokk daanu mbokk yi maa ngi jàngat immigration bi ñuy wax ne mooy bu légalul bi waaw léegi léeg nga dégg ñu ne mbay mi sunu borom kera bi mu nammee wàcc nit ci kaw suuf nit kaa nga tuddoon aadama jabaram tuddoon xawaa waaw nit kaa aadama jabaram tuddoon xawaa mu dugal leen ci benn benn benn bu tudd aljanna waaw benn université bu tudd aljanna la leen dugal ñoom ñaar ñooñu monsieur et madame monsieur Adama et madame xawa waaw mu dugal leen aljanna benn université bu tudd aljanna fële leen dugal di leen jàngal nan la nit di nekkee àdduna ndax malaaka yi mënuñu fee nekk ndax ñoom gàntu nañu montagne yi mënuñu fee nekk ndax ñoom gàntu nañu asamaan mënu ko ndax ñoom gàntu nañu inna aranal amaana dégg ngeen ko ñépp gàntu bi suuf jëlee nag ne moom bi ngeen baal ma bi nit jëlee ne moom moo koy taxawee sunu borom daf koy jox ay yu mu fi mën a nekke jumtukaay yi la ci jiitu xam-xam lay doon xam-xam ba mooy coordonné yi tax mu mën fee nekk bu xam-xam amut du mën a sotti xam-xam rek moo tax ñuy laaj réew mi ñëpp ñiy laaj réew mi ñëpp xam-xam yooyu war nañ koo am xam-xam boobu nag tekkiwut ay diplôme déedéet xam-xam bi euh, tekkiwut loolu mooy yi fi nekk ci nit di ko dunde xam-xam bi koy coordonné xam-xam boobu lañ soxla ci koo xam ne ki danga bëgg yor réew mi ñoo ngi toll ci di waajal 2024 waaw candidat yi yi daanaka lee mu mat tabarkàlla mbokk yi bi yàlla yóbboo aadama université yóbbu fa jabar xawa daf ko wax ne ku uskun anta wa zawjukal janna ànd leen ngeen dem ngeen dëkk fa waaw jàngal ko nag al asmaa kullaha waaw al asmaa kullaha lépp luy tax a mën a nekk ci kaw suuf rek jàngal na ko lépp loola nag ñeenti yëf képp la imaam Ablaye Ndaw ñeenti yëf rekk la lu njëkk li mooy ku xiif nooy def ba lekk lool la loolu la jàngi woon waaw ci aljanna moo xam université la moo xam nu ma ko tudd nu ngeen ko tuddee yéen aadama dafa demoon moo jabaram jàngi ku ñëw kaw suuf boo xiifee nooy def ba lekk mbokk yi penc mi am na ñoo xam ne loolu lañ jàng penc mi am na ñoo xam ne loolu lañ jàng ku xiif nooy def ba lekk ku xiif nooy def ba lekk bu ci Afrique taxawoon bu ci Afrique taxawoon kenn du tol saw dal lu wuti foo lekke ji di yi kenn du ko def nun nag sunum réew bu fekkoon yàlla day beral loxo am réew dañ naan daf ñoo beral loxo ñun suñu réew mii suuf si ñu am ni mu tàllee kaar kaar espace bi ni mu yaatoo kaar kaar ni nit ñi ñemee coono ab sénégalais kaar-kaar ku xëy-xëy ci dara ku xëy-xëy ci dara kon su fekkoon ñépp bàyyi na leen ñu dox foofu xiif daal di fi jóg waaw ku xiif nooy def ba lekk dañuy bàyyi baykat yi ñu bay ginnaaw dañoo bëgg fee jëleb xiif dañuy bàyyi baykat yi ñu bay te bay moom ne la bayal gerte nga bay gerte boo xiifee doo ca lekk déedéet bu añ jotee doo aña gerte bu reer jotee doo reere gerte kon bay gerte lam doon def mooy loo am loo def ci sa poos mu dimbali la ci lenn ci lenn ci dépense yi wax jooju boo delloo ci njàngalem sëriñ fàllu radiyallahu taala anhu nga cay jàngale ne acca leen ñu ruuji dañoo màggal màggalu tubaab ba noppi jamono yooya mu ne acc leen ñoroo ji na ñëpp dellu ca toolee ñoroo ji ñun ñëpp ñu dellu ca tool ya ruuj ji ñu noppee mu ne ruuj ngeen ba pare ñu ne waaw mu ne acca nañu faru faru mooy ñu ji dugub te tawagut loolu mooy faru mu ne kenn ku ci nekk la mu ruujoon na ko xaaj ñeenti xaaj ñett yee yëpp na ko bay dugub benn ba gerte gis nga mbokk yi loolu Sëriñ lu jàngale mën naa nekk benn programme mu jàng ci suñu école yi malheureusement ñun ab sëriñ duñ déglu ci moom ndigalu jëf ci pénc mi déedéet dañuy déglu ci moom yeneen ndigal yu bokkut ak ndigal yooyu waaye benn tomb ngi nii boo xam ne bi buñ complexe wutoon buñ ko jëlee exploité ko lu dem mën nañ ko ci am sëñ Fallou daf ne nañu ruuji ñu ruuj ba noppi ne ko mbàkki ruuj nañ ba noppi mu ne waaw kay nañ faru ji nañ faru ji kenn ku nekk nag lam ruuj maanaam ko amoon 4 hectares 3 hectares yëpp na nekk dugub benn hectare bi gerte suñ ko jëndee baax na suñ ko jëndu nga rënde ko waaw nga rënde ko waaw na ma tukulóoru bàyyi Bachir Baal ay wax na dëgg sunu borom bi jugal aadama ci aljana ne ko euh, dama lay jàngal ku xiif nooy def ba lekk mbokk yi li réew mi génn di ko jënd ceeb di indi ci ci réew mi bu ko réew mi doon bay di ko dunde ndax jamono daa ñëwoon réew mi nit day bay dugub bay mboq bay feela bay saañu bay ci ginnaaw too këram ñam bi ñam bi waaw lu mu cay jaay jaayee ko prix bu baax kenn du ko ca nax bu soxlaa lu mu lekk ca yooyu lay dellu ñun ñu dem ba tàmmal sunu bopp ku lekkut ceeb lekkoo moo tax nun ñépp noo bokk feebar bi ceeb di joxe ak wala boog feebar yi ceeb di joxe ku lekku ceeb rek lékkoo nogay fi ne ñeme naa dem ca saako pepp ba natt ca juróomi kiloy pepp pour am liibarub ceeb juróomi kiloy pepp pour am liibarub ceeb kañ la ceeb gëne pepp noonu waaw loolu de dirigeant yi ñoo ko war a liggéey taxaw ci taxaw boo xam ne bi dana ko soppi mbokk yi damay damay jàngat immigration waaw monsieur Sey <laughs> xale yaa ngi dem ñu ngi des ci géej gi lim baa ngi yokk yàlla na fi am ma nekk ci jàngat ko waaw jàngat ko ma toll ci pénc mi ak ñi ko fi bàyyi di dem lu tax ñuy dem kon bi aadama duggee aljanna lam doon jàng mooy ku xiif nooy def ba lekk nan ko jàng ci sunum réew ba dul jëggaane lu ñuy lekk di bay di lekk di lekk liñ bay waaw di bay di lekk di lekk liñ bay def naa terme boobu sa Ahmed Daam Njaay moom nun la koy jàngalee ndax moom wàllu économie la jàng waaw wàllu économie la jàng te nag waaw dégg ko <laughs> waaw dégg na ko lool tubarkàlla yàlla na ko yàlla yokk wér Ahmed Dam di bay lu ñuy dunde di dunde leen bay mais fi ne nun xeeb nañ li ñuy bay ba jàpp ne la njaamur la bay jamono ñëw ni fi rek ñu ne guerre daa am fële ci bitim réew diggante Russie ak Ukraine rek tax ñu ne ah prix day yokk ndax lañu lañu bitim réew Ukraine doon jaay ci wàllu bele waaw mbokk yi mennum réew di jaay adduna si yépp bele mënu lu nu tee bele te sunu dugub ji mook bele sorewunu lu bele man rek dugub man na ko maa la ko wax boo ko laajoon tooñ ñu am Ahmadou gay ñi nga xam ne ñooy lakk mburu xam nañ mburum mburum mburu mu jóge ci wàllu euh, bele ak mburu mu jóge ci wàllu euh, dugub waaw différence bi amut ndegam dugub ji bu njëkk bi ñoom père Birahim <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér di lekk laax su nawet bi jeex ñu ñu mëkk mbool bu nawet bi ñore ba noppi ñuy reere cere def ci kobos waaw imaam lay ndaw jóg na toog ndeysaan def ci def ci kobos booba koo téye aw yaramam da nga yëg ni kii aw yaramam nga téye day dëgër mais yaram mi léegi ko taxaw bokk ko ba ma wax mu daanu nit ñu baree bari ñu tànk yu métti atinuñ tànk yi tànk yu métti yooyu fu mu jóge mbokk yu roq boobu li ngeen ci xam moo ëpp li ma ci xam waaye daal aadama suñu borom da ko dugal aljanna pour mu jàng ku xiif nooy def ba lekk jàng ma mokk na indi na ko ci kaw suuf jëfe na ko muy dox ba jamonoy tey nit xam ku xiif nooy def ba lekk loolu nag su boobaa dañ naan am réew bu xiifee nu ñuy def ba mu lekk ak kër bu ñu xiifee nu ñuy def ba lekk loolu am na solo mu ne ko walla taara mooy ku raf leen nooy def ba sol gis nga alaaji dooro bu ñu dindee wàllu wàllu complexe ci sol sénégalais kenn gënu ko rafetu col bu ñu dindee complexe ci col waaye su fekkee ne ku solowut na tubaab booy solo solowgoo moo nu dugal ci yi nekk nii ak col warta jafe warta seer warta raar waaye fi nekk jàpp ne dangay solo ni ni tubaab yi solo karavato ni ñuy karavato dàll dàllu tubaab waaw ngaay mexe gii li fi nekk ci dàll buñ defoon na Kadhafi defoon nga xam ne ku fi sol dal made in Italia ñu nangu ko nga dox ak tànku neen <laughs> xam ne mën nañu ñàkk àgg foofa nag waaye daal di in ngay mexe buñ ko doon def fi ne waa ngaay ñëpp xale yëpp toog kon benn xale du jóge ngaay di émigré waaw nga dem romb jigéen ña ña ngay defar seen séri jigéen waaw waay ngaay

dama lay dugal ci oto nga ànd ak nit ñi ngeen dem ngaay nga jënd ca dàll ya jëndal ca say doom jëndal ca say sëriñ say say say say say uh, sa famille képp ku fi ñëw rek naa la yóbbu ngaay waaw tabarkàlla ba ñépp xam ngaay waaw ko defee nu ànd kook sama premier ministre mbokk yi teg leen seen baaram foofu bind bi jeexut dañu jéem a jàngat immigration te bëgg ko tàmbalee fu sori incha allah ba buñ ci accès mu jariñ ñu jariñ leen jariñ xale yi nga xam ne ñoo koy def euh, tabarkàlla bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 suñ jotaay bi nga xam ne day am lundi di am mardi jataay bi 8 heures lay tàmbali 10 heures lay jeex jéggalu soxna yeeg sëriñ si suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ni taxaw yoon seen i këyit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu àndandoo bii di C3S la ci bitim réew yàlla na ñëw la ci biir réew mi yàlla na jar ak mbokk mi suñu sponsor bii di Fari Industrie yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy post dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu